booy seet fii ci Koki ci arrondissement bi liñ fi def ci ay salle de classe ci ay mur de clôture ak ay bloc administratif def naa ni bari na def naa ni ça fait quelques mois monsieur le maire nga interpellé ma ci benn ndaje ni ma da soxla bloc administratif mooy seen problème def naa ni bloc administratif bi dans un mois daañu la ko livrer lépp dana pare parce que président Macky sàll daf ñu wax ni ñu njàng mi nañ ko toppatoo au niveau du conseil départemental moo tax on a ménagé aucun effort pour que lépp loo xam ni day jëmale njàng mi kanam ñu def booy seet njaañ tabax nañ fa bloc administratif def nañ fa ay salle de classe boo demee Thiamène def nañ fa ay salle de classe yëkkati defaraat nañ ko mur bi monsieur le premier ministre ñun fii incha ci kattanu yàlla dama la wax ni la ñun njàmbur gañe rek lañu xam te dañu bëgg a gañe pour fal suñu président amalu Ba ma bëgg ngeen tàcc loolu pour ñu fal ko fii nag lu yomb la lu yomb a yomb waaye lu jafe la aussi bu ñu naxante dama bëgg te xam ngeen bu baax li may wax pour ñu fal ko au premier tour ndax bi ñu koy fal fii yomboon na. te booba metti woon na parce que ñu bari nekkul fi woon mais teewul faral nañ ko lan lañ ko woon joxoon dañu nekkoon benn waaye tey kenn ku ci nekk yaa ngi naan man la yaa ngi tiiri sa côté ba nga xam ne sax te mujj di yàq te loolu baaxul comme dañu bëgg a fal suñu premier ministre bi di Amadou Ba au premier tour nañu nekk benn